salaam salaam salaam samay mbokk samay xarit samay am di jàmm wala wala di ñëw ci benn jàngat bu njaw boo xam ne nag maajoor ay joor la maajoor ak joor nag boo ko déggee benn théâtre bu neex la bu neex sénégalais yi nag macha allah voilà ñu taxaw ci jàngat tuuti rek loo xam ne ci suñu xam-xam bu gàtt wala ñuy wax ni maajoor ak joor neex na sénégalais yi neex na ñëpp macha waaye man ci sama xalaat bu gàtt lay waxee Madior macha allah xale bu yaru la xale bu teena gis nañ ki ñu bëgg ki mu bëgg tamit muy joor voilà jëlee na ko ci garçon manqué <laughs> indi ko ci jigéen macha allah xale baa ngi jongoma hmm? voilà dindu gi di ñëw di togg ñu bëggeel mbëggeel bu sincère boo xam ne amul benn kii waaye li koy bëgg yàqu yàq tuuti euh, mbokk maajoor yi muy yaayu yaama di puus di jël yaama di ko puus ci xale bu góor bi pour rien que ñu sekk dara pour kooku bu ko biiralee mu mën koo takk ñuy xeeb loolu tamit parce que xale bi bi mu gisee woon appel bi ci beneen épisode bële parce que man maa ngi doog dugg ci épisode euh, daa mel ni dix épisode la waaw ci boobu ci boobu laay mën a commentaire ni voilà épisode bële passé appel bee taxoon xale bi gedd dem moo taxoon coup bi dalul peut-être léegi ñu xeeb loolu léegi ñu ngi duggati ci sëriñ ma xalaat may may wax ci sama xalaat bu gaat ndax mbëggeel jar na sëriñ yenn sëriñ yi parce que tey moom bu ko sëriñ coo ba kooku ko mm, së sëy bi du mujj bien que mu bàyyee ko moom ki mu bëgg mu takku kooku maajoor tamit dina am tuuti problème muy fi muy liggéeyee mooy ndaw si nee na ko ah kon da ngay takk jabar mu ne ko waxante wuñu woon takk xaw ma dañ doon génn xaw ma génn ñu baraf xaw ma xam dara leeruñ ci loolu waaye ci kii bi daal épisode bi daal lool la ko tontu affaire bi ñëw ba jàpp maajoor ba loolu feeñ ci liggéey maajoor ki koy maquillé nee na ko yow ci sa bopp bële yoon nga gënoon a kii tey da nga ñëw di ree waaye sa émission bi des na amee xorom kon li ñuy wane foofu rek li ñuy jàngat tuuti ci suñu jàngat bu ndaw mooy liggéey àndut ak àndut ak euh, xalaat yu bari àndut ak yenn waxe parce que loolu day feeñ ba feeñ ci sa liggéey voilà te ba pare mbëggeel yooyu waruta dugg ci liggéey man sama xalaat gàtt ay affaire bëggante waruta dugg ci liggéey moom ak kële liggéey moo leen sekk moo leen liyee dañoo liggéey pas mu dugal ku jigéen ki di fa dugal mbëggeel ba muy perturber ba loolu di feeñ ci liggéeyam mooy comme genre li ñuy wax rek promotion canapé voilà nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu xam ni loolu nit ñi dañ koy def te baaxut ci sunu xalaat bu gàtt voilà may ñëwaat ci yaama yaama ñoom dañu bokk ak maajoor bëgguñu maajoor ñoom bëgg nañu rien que papay maajoor jabet bi yokku mu dee ñu jël kër gi jël alal bi ñoom bëgguñu maajoor ñoom daal dañu bëgg alal bi bañ nañ ko ba ijo fils lañu tuddee maajoor kon xam ngeen kooku bëgg ko léegi bu soxlaa xaalis nag naan ko làmbalal sa bàjjen dara léegi may wax ni ndax yenn mbokk yi ndax yenn mbokk mbokk yi ndax est-ce que du xaritoo rek bokk lal rek fanaan jóg parce que ma ndax sa mbokk dina la yéeneel nii te yéen kaf di reetaan ba pare mu lay yéene zaar yu mel noonu rafetul benn yoon nañu xoolaat sunu bopp bu baax na nañu xoolaat sunu bopp ñuy jàngaat waa théâtre bi neex na yëpp neex na sénégalais bu baax a baax tal moo ngi yéete lii ñuy def nii li ñuy joué li am ci kër yi la lii nit ñi di dund li nit ñi di doxee du ci liggéeyukaay du fépp fépp foo mënti nekk voilà voilà lii daal la ñëwoon tuuti ki ku am lu muy commentaire ku am loo xam ne nii mën na koo wax ni Awa Hann La Star li nga wax nii la wala du nii voilà ñoo ngi di xaar ci commentaire bi sunu page YouTube di leen jaajëfal bu baax a baax ah, góor ak jigéen maga ndaw bàyyiwuñ ñu kenn ci sénégalais la ñu nekk ñu ne neen la wala bu wax bi nag débordé ñoo ngi jégal bu baax a baax ci ñi koy déglu man la seen doom seen xarit Awa Hann la Star merci beaucoup